asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu saxoo seetaan euh, people 221 euh, tey nag dañoo ñëw fii ci euh, cité comico seet ci benn marabu macha allah ku ku yëngu xam-xam macha allah ku yàlla may ci xam-xam ku yàlla may macha allah ci xam-xam Serigne Babou Alxuraan ziar na nga. waaw kay rabbi iksib al asrara wal qawamida yaa xayra man kasafa sirran xaamida mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar mbokk yëpp macha allah. di la delloo siyaar bu baax di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu tawfiix di ñaanal tamit Cheikh Mouhamadul Muntaxa ayyadahu llahu wa nasara suñu borom yàggal ko fi te dëgëral ko kon ñu ngi lay delloo siyaar bu baax. sëñ Babacar Alxuraan. Hmm. suñ doon wax tey mbokk yi hmm. sëriñ Babacar Alxuraan mooy kan nun hmm. ñu ngi cosaanoo Saalum fa lañ juddoo. Saalum ah, fa lañ ganee àddina. fa jànge jàngee alquran jàng fa tamit lenn ci fànni xam-xam yi yàlla dogal na ñu jógee Saalum jaar Touba jaar nañ tamit ci ay yenn ci ay daara yu fa nekk waaye nag lasaraar moom wax dëgg yàlla ñu ngi ko jàngee ci waa kër sëñ Masamba Diop Samb ñooñu waaw ñu jàngal lasaraar kon ci gàttal rek sëñ Babacar Guèye alquran moom mu ngi nekk diggante Saalum la gënee àddina waaye Touba nag laa dëkk fa la sama kër nekk. Mhm. Serigne Babacar alxuraan. Mhm. Mhm. Euh, macha allah comme nga jàngi nasaraan. li nga xam ne mooy xam-xam. Euh, da ngaa màgg dem jàngi euh, xam-xam. wala dafa nekkoon say tere say maam dañ doon faj. Ah. nga jóg waaw kay amoon naa maam joo xam ne maam ji yéeme la woon wax dëgg yàlla nekkoon koo xam ne ku suñ borom mayoon lool ci fànn xam-xam. Euh, yàlla dogal mu moom nag euh, mën naa wax ne alquran mënoon na ko lool waaye ni la mënee woon garab tamit muy wàllu sunguf euh, kon lu nu jàng la waaye lu nu donn la ci sunu maam waaw ci alquran nag wax dëgg yàlla ñun moom mooy suñu dëgër laay ndax ba ñu am juróomi at ci lañ nekk ci daara ji di jàng alquran ba nuñ koy jàngalee dema dema ma dem ba yàlla dogal ñaan gi sax moom moo ñu xaw a kii waaye terewul moom daara jaa ngay continuer di dox. Mhm. Serigne Babacar. Mhm. gis nga Serigne bëri na Sénégal. Mhm. jóg na Serigne jóg na Serigne daal. nga ne Touba nga dëkk. est-ce que itam. di nga woon askan ne. sa xam-xam. wér na parce que gis nañ ne naxaate dafa bëri. Serigne ku jóg ne xam-xam. yor say kay bind sa tey sa daa. ne Serigne laa. wallaay jàngoo ko fenn. ak kéemtaan yi am essence yi. ci dëkk bi. Mhm. moo tax kenn mhm. euh, ba li nga wax li nga laaj daa am solo. waaw mhm. kay lu wéra wér la. waaw ndax boo xoolee sëriñ si. ñu bëri bëri dañuy wootee xam-xam fekk dañuy nekk ci dara rek ba loolu dëgër ñu daano ji si lasaraar fekk lasaraar bu njëkk ak jaamu yàlla la war a doon ak sellal ndax lii di lasaraar soo ko mënee dëgg dëgg dëgg dëgg naa wax ne jinne ngay doon ndax lu ne rek. wallahi boo ca duggee am ca ndam. Ah, lu ne mën naa ko ci. wallahi lazim lu ne rek mën naa ko ci. la lu ne rek ki laa loo xalaat ci àddina lu wér laa la wax man du ma la wax eh, bu waree wër ma ne la jinne yi ñu ngi wër bu warut a wër ma ne la wërut gis ma benn jinne jamono bi waaye dama la bëgg a xamal ne ne ne xaqiqatan eh, mooy ñun lasaraara jinne lañ ci wallaahi li azim ndax euh, mën nañ cee def mën nañ cee dindi mën nañ cee fal man nañ cee folli mën nañ cee wane ay xar baax yoo yu bëree bëri bëri bëri. ci lasara ci lasara. kon lasara ngi cee fal mu ngi cee fori. mën nañ cee fal bii kay géemaan la ci. fal fal ci nit a nekk président wala dama bëgg waaw. mën nga ma ko defal mën na mën nañ la kaa defal am na mbind moo xam ne bu yàlla dogaloo ñu jo ñu bind ko ba pare jox la ko boole kaa dafa am sunguf bu muy àndal sunguf bi mooy ray dond garab gu ñuy wax ray dond waaw ray dond moom lay àndal moom lañ koy booleel jox la ko ci kattanu yàlla donte da ngay déjjati ko fa nekkoon tamit da nga koy déjjati toog palaasam waaye faw rek yow nga fal moom wallaahi naazim kon euh, nguur gi war nañu seet si ko réew euh, loolu ku ma ak ku ma seet woon moom. mais ok garab gi loolu la tudd roy doon la. Mhm. bu fekkee ne sax wàllu wërsëg la. Mhm. ci fànnu taala taal nit nii. Mhm. am na garab goo xam ne nii ci fànn roy doon la waaye garab gi dañ koy wax guy ak daqaar waaye garab googu dafa am lu ñuy bind ci alquran jox la ko euh, aaya ba wana sanna maa fi sudur min xillin ci suratul baqara Euh, euh, mooy mooy maanaam sax min ayatin aw nunsiha naati bi xeyri minha ci suratul baqara buñ ko bindee ba mu jeex ah, boole ko ak lenn ak leen ak leen jox la ko ci kàttanu yàlla donte da ngay dijjati nit da nga dijjati toog place loolu moom lu lu wér a wér wér mu jarabu saxi la waaye ci nasaraat bi nga ma laaj ne ma ne sëriñ su bëri dañoo doy waar loolu lu wér a wér la da ngay gis ku fàqee ko ca làng ga rek daanu ci ne man ah, ab sëriñ laa damay ñaan euh, tax na tey ñu bëree bëri ñemeetuñ sëriñ si li waral loolu mooy ah, ba ñenn ñi dañoo ñëw ngir def ko métier wala ñenn ñi ngir wutee ko alal waaye lasaraar wax dëgg yàlla soo ko mënee jinne nga ci war a doon lu ne rek war nga ko cee mën a def ci kàttanu yàlla. ñu gis nañ ne euh, jëmm ji euh, instant mm. dëkk bi. Mm. Euh, feebar yi bëri na. Mm. hémorroïde. yaakaar naa am na ci àdduna bi. te yow boo am nañ ci traitement bu gaaw. waaw të émurit ndax dafa am lu ñuy wax émurit bu feeñ ak bu bu bu bu nëbbu bi nga xam ne ci biir lay nekk du génn émurit bi bi nga xam ne daa feeñ boobu am nañ ci garab yoo xam ne moom lañ lay jox am nañ ci produit yu ndaw yoo xam ne nii ci kàttanu yàlla moom lañ lay koy jox nga koy diw ci picc bi ci kàttanu yàlla boo ko defee 24 heures picc bi dana dugg di commencé di seey ba ni nga xam ne nii dootoo ko sentirati bi nga xam ne nii nag moom dafa nekk ci biir am na tamit ay traitement yoo xam ne dañ la koy jox yenn yi liquide la yenn yi poudre la waaye bu ñu la ko joxee incha allahu taala nga defee ko comme ni ñu la ko waxee ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala da nga tàqali ko moom waaw wërsëg moom am naa ci yu ay cangat yoo xam ne cangat yu doy waar ak ak ndomb maa euh, goo xam ne cangat gi eh, am ko rek moo moo moo insha allahu taala bu neexee yàlla danaa leen ci jox waaye cangat gi boo ko amee faw nga tàkk loolu moom ala kulli da nga ci kàttanu yàlla insha allahu taala danaa leen jox oh, danaa leen jox cangat gi incha allahu balaa ngaa am deux mois. Mm-hmm. ci ni yàlla ñëpp danañ leen dégg. da nga xam ne ni xëy ah, am na lu mu. jëloon gis ne ndaw yi tam lan mooy seen problème tey. Mm-hmm. Mm-hmm. wàllu ngóor. sëy tas na. tey dëgg la dëgg la dëgg la loolu dafa ah, mm. moom benn rek lañ manta faj. mooy bi nga juddoole. kese kese. waaye bu ki nga xam ne day gaaw a daanu. am nañ ci euh, traitement yoo xam ne bu ñu la ko joxee ci kàttanu yàlla moom ñetti fan lañu la may bu neex yàlla ngay gis changement ci sa bopp waaye da ngay continuer traitement bi di ko jël ba yàlla dogal incha allah ni nga ko bëggee nga am ko ndax ay ay alquran la yuñ boolee ki sunguf danaa ñëw ci garab wax la ci lu yéeme nga xam ne garab lu yéeme yéeme la waaye ay ay alquran lañ jël boole ko ak sunguf mooñee ko ko ci kàttanu yàlla kuy gaaw a daanu ak ki nga xam ne man ni yoom dafa woyof amul wallax njaan mm-hmm. kooku noonu buñ ko ko joxee incha allah dana am wallax njaan ba lii ñuy wax doom incha allah man cee tukkee am na koo xam ne ni tamit yàlla dafa dogal ñu takk ka xala ki nga xam ne ni dañu moom dañ ko takk xala kooku moom xala moom ñetti fan incha allah nga tàggoog moom ci kàttanu yàlla Mhm, loolu moom lu wér la. macha allah dégg ngeen li nga xam ne Serigne Babacar Sy moom la wax. nekk mhm. fii ci cité comico. Mhm. macha allah euh, képp ko soxla da ngay euh, woote ci numéro bi nga xam ne mooy daw ci par l'écran bi. di nga ki nga xam ne mooy Serigne Babacar Sy. feebar boo am rek incha allah boo jokkoo ak moom boo ko waxee ni mu lay dalal rek incha allah dinañ ci def saafara bu baax a baax ci kattanu yàlla. mais Serigne Babacar Sy. Euh, gis nañ ne aussi itam. dëkk bi temps yi lëmëjoo na. maaraay yi rek laay waxati. ku gis nañ mu toog ci benn vidéo. ne moom day xar géej bu la neexee caméra yi topp ko mu dem xar géej gi. def ko mm. ñaar. Mm. loolu loolu ñi naan mën na nekk ñi naan mënul nekk. Mm. muy lëmb dëkk bi. en tant que sëriñ. est-ce que loolu mën na am bala yow loolu da nga ko gisee. Euh. est-ce que même bu ko mënoon tam war na toog devant télé di wax loolu. waaw euh, ndax mën na ko moom suñu baax nga dama bëgg na nga wax tey jàkkaarloog askan bi. waxoon man ne incha allah <laughs> at na ngay wax. Euh, ci kàttanu yàlla danaa la ci wax lu wér. gis nga kii yàlla mayoon mu njëkk a xar géej gi mooy yént yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam keroog bu ko firaawun na toppee sun borom dana ko jëlal sa yet wi fadri asaya dóoral sa yet wi ci biir ci kaw euh, géej gi mu daal di fàkk def aw yoon moom même bu ko mënoon sax dafa am kiimtaan yoo xam ne li ñuy wax euh, karaamatu karaamatu yàlla da kay maye waaye da kay nangu lu wér a da koy maye waaye da koy nangu li ma la ci mën a jox firnde mooy nit ki ci boppam ak ruuxub dana la tàggu na la ne kii li ko desee ci addina matatu ñeent fukki fan waaye ruuxu gi tàggu nit moom ci ñeent fukki fan dans euh, quarante jours ci lay lay ruuxu di mën a tàggoo da ngay gis ko ne diw day faatu ñu toog quarante jour dépassé ko kooku gisutoon dara ki nga mën a gis ne kii ku faatu la kooku diggante ñeent fukki fan ci nga ko mën a gis ñeent fukki fan ruuxu gi mën naa ñëw ci yow saafaante yow tàggula la ne la ne ruuxu diw laa dama fi jógee ko waxtu sàngam loola moom lu xam la kon loola da lay firndeel ne karaamatu yàlla da kay jox nit karaama waaye jamono bi mu la joxee karaama ndax moom mën naa fàkk géej gi nañ ko nañ ko bàyyi mu xa mu mu mu def ay kiyam te ñu ànd moom mën na am ne lu am la te bis dina ñëw moom mu xam ne ne moom mënta fàkk dara ndax yéen yàlla kon daal li nga bëgg a wax mm, mm. li nga bëgg a mooy mënu ko euh, sëñ bi li gën a yéeme mooy alquran mujizatun xaalidatun fi kulli zamanin wal makan alquran mujiza la goo xam ne day sax ci barab bu nekk te gi nga mujizatul quraniya loolu daraja la martaba la boo mën a yegg pour mën a xar gejji ki nga xam ne nii nag moom li ci ëpp liggéeyu ci alquran mu ne moom mën naa xar géej gi te ñi ci liggéey sax moom buñ ko doon roon a xar ci nu gise lay doon ndax karaama suñ borom la waruma la nga xam ne ni xotti warmaa suñ borom la ndax loola dana am wala du am nañ ko topp du du mujj fenn du mujj fenn du mujj fenn waaw loolu moom lu wér la mm-hmm. du mujj fenn mënu ko de wallaahi lazim mm-hmm. euh, ñu gis ne aussi tam mm-hmm. euh, nañ ne askan bi ñu ngi taal ay ponum hmm. def lii hmm. li nga xam ne hmm. moom la le président Macky Sall euh, décret bi man moom la wotee ne manifestation lu fi am wala manifestation am du amee nii la ñuy def euh, mu andi lëmb dëkk bi lan nga gis instant yi ci ma gis ci réew mi euh, incha looy teg sa bët la luy Sénégal di teg seen bët la. gars yi dañuy wax rek de yaa ngi de. lu lu laa lay wax. wala yow kay wax du. man <laughs> man wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun la alquran waxoon yonent bi salaa salaam ne ne du wax ci bànneexu bakkanam mm. man du ma wax mukk ci lu ma leerul waaye li ma gis ci ci réew mi ci kàttanug suñu borom subhaanahu wa taala suñ defu doucement dëgg dëgg dëgg dëgg gis koo xam ne nii lu ñuy wax ne ay du yem ci boppu borom da gis ñoo xam ne seen yoon nekku ca ñoo cay mujj des ndax réew mi fi mu mu toll nii gi nga gi gi gi nga ko woyof bopp wallaahi da faatu waaw waaw Macky lépp mm. li muy tant que sëriñ en tant que mm. diskat mm. euh, euh, en tant que diskat en tant que wala kan mooy toog moom moom moom moom bu fekkee ne dem na troisième mandat tamit day ñàkk moom moom moom bu demee troisième mandat day ñàkk réew. bu fekkee ne maanaam kon li nga moom bë mooy bëgg-bëggam. mais jamono bii ma toog nii mooy bëgg-bëggam moom. Mm-hmm. pour nekk pour doon pour doon candidat troisième mandat. Mm-hmm. waaye même bu ko bu demee tamit day ñàkk day ñàkk. loolu moom wallaahi lu gis la nag. Mm-hmm. waaw ñu gis ne Euh, am na lu muy dëkk bi temps yi mm. wàllu mm. mooy Sénégal ñu gis ne fan mm. am na soow yu amoon muy euh, soow Wally gis ne soow bi dafa am léegi nii en euh, koy ñu ñu koy lëmbalëmbee ci bi muy ñaari góor nekk ci kaw bi di fecc ba fóonante la lan la ci lislaam wax allahu ak nan nga ko gisee yow gis nga lu lu lu du mas a dagan fal xaraamu xaraamun fal mamaata doonuhu Euh, alaaji abdullah da doon wax ni lu xaraam de xaraam na def ko dee moomu ko gënal gis nga lu xaraam du masa dagan gis nga yonent yàlla nuux euh, yonent yàlla luut alayhi salaam keroog ba nga xamee ne ay nitam compolo nañ ci góor jigéen na leen seen borom def mooy wa jaala aliya safilaha mm-hmm. na leen yàlla mbugale mooy daa jël li fare woon kaw jàllal bi ko mu fare suuf kon loola lislaam moom du ko mas a daganal te du dagan mukk waali moomu nag eh, na def ndànk bu baax a baax a baax. waali sekk waaw na def ndànk bu mm, li muy defee ndànk mooy ndaw la te ndaw warta yàkkamti ci dara ñaare ba tamit waajuram eh, ñun ku ñu ràññee woon la. Mm-hmm. Eh, yal na yàlla seral a yaxam fa tëdd. loola rek war naa gën a mën a tax mu def ndànk bu baax a baax a baax. yu bëree bëri bu mu ci nangu di dugg gis nga donte musique moom lislaam masu ko daganal lawal xadiis boo gisee alquran tudd ko mooy musique musique lislaam moom du ko mas a daganal waaye donte moom mu nga ca na xool nan lay doxee na xool nan lay doxee te mu wut nag lu ko protéger ci boppam ndax wolof day wax ne euh, wax jigut bant bu tooy sax asuma laa doomu aadama ndax boo ko waxee bant bu tooy bu yàggee mu wow kon na wut lu ko protéger bu baax a baax a baax moom Wally Seck moom noonu te mu def ndànk bu baax addina moom ndànk-ndànk mm, la rek waaw te lépp loo xam ne nii àndut ak diineem surtout moom mu ne taalibe la rawatina mu ne murid la man boo dee murit rek dama lay bëgg wane Sëñ Tuubaa man boo dee murid rek dama lay bëgg kon dama koy digal mooy mu def ndànk bu baax moom Wally Seck gis benn beneen beneen rumeur bu am ci dëkk wala mm. beneen affaire bu am ci dëkk mm. muy ki nga xam ne aussi tam mën naa ne jegaanaale Wally Seck la muy mm. Pawlish Mbaye je crois que même boo ko mul tam léeg-léeg nga dégg ko wala nga seetaan ko mu dem dem ci benn site internet ne day dafa dafa def accident bandage bopp bi bandage tànk yi ak loxo yi te gis nañ ne la loolu du lu wér en tant que yow en tant que jubanti ndaw loolu lan nga ciy wax xam nga man li ci ëpp yàlla dama daf ma nattoo du may déglu musique wala du may seetaan ñu ni mel waaye moom moomu dégg naa ko yàlla dafa dogal am koo xam ne euh, vidéo bi moom la ma envoyé ma ma ma ma gis ko waaye gis nga nit ku man di doon def ndànk daa am solo hmm, ñaareel ba am na ñoo xam ne boo dalee seen kawra rek gaañu na def ndànk bu baax ndax man dégg naa ko moom mu wax ne sëriñ su ndaw si yëpp gëmuñu dara waaw lekk xaalis nit ñi rek la la lañu gëm loolu nag nañ ci def attention bu baax a baax a baax euh, mag ñi dañ doon wax ne kuy teral nit bu yàggee nga teral wali waaye kuy xotti worma nit bu yàggee nga xotti worma wali na def ndànk bu baax moom Pablis moom euh, miinuma ko nag malgré bu baax ndax man du ma seetaan yenn yu bare bari wax dëgg yàlla du ko seetaan am ma jot bi am ma temps bi waaye na def ndànk bu baax sëriñ si am na ñuy naxaate gaa waaye am na ñoo xam ne nii alal gis nga ki la jox sañ ki jox juróom fukki junneem deux cent cinquante mille am ne leen damaa bëgg nga ñaanal ko nga war a mën a tëju guddi jot une heure de matin deux heures de matin nga toog fi nga toog jàpp sa kurus ñëpp di nelaw nga jàpp sa kurus di ko ñaanal lu war a man ñetti ñetti waxtu kooku bu la fayoon téeméeri junne tamit boo ca amul yàlla amoo ca dara yaa ngi perte waaw kon sëriñ siini même bu ñuy naxaate am na ñoo xam ne naxa naxaate wuñ. sëriñ Babacar. Mm. ñu mm. mm. am jafe-jafe. Euh, bu mu liggéeyee. wala jafe-jafe. Ah, jamono jii ñuy waxee tembe na ñoo xam ne ñu ngi ñuy dëgg. yàlla bu dogalee ñoom ñu am kayit suñ borom ñu ngi ko jaarale suñuy loxo. wallaahi. Ah. <laughs> li ma li ma wax nii dana am ñu ko seede. ñoo xam ne leer na ma leer yàlla ne bu seen kayit sama borom mu ngi ko jaarale seen sama lox am nañu loo xam ne buñ la ko defalee ki mas a am kayit ak ki mas a am kayit am na koo xam ne day renouveler nga xam ne këyitam dafay dafay waaj a jeex mu bëgg mu mu bëgg kaa ak ki nga xam ne masut am kayit ki mas a am kayit. buñ la defalee liñ lay defal jamono période bi ñu ñaanee kayit bu neexee yàlla tombee nga ko fukki fan ak juróom ñu may la kayit ci kàttanu yàlla ki nga xam ne ni moom day ku ko moom gën caa bari fukki fan ak benn moo tolloo huwa al alkubéro euh, cinq la waaw six la waaw da am këyit gis nga euh, sëñ bi lasaraar falaay mujjee gis nga li ñuy wax lasaraar war nga war ngaa mën a xam tur yàlla da nga dem ba toll foo xam ne Euh, mais sa téléphone du am réseau euh, da ngay perte réseau Tigo wala nga perte réseau Orange nun la réseau lasara dem turu yàlla dëgg dëgg dëgg day am réseau bi muy jàpp kon lasarar euh, ak yéemeem kenn xamu nu mu gis nga boo manee lasaraar faw nga xam garab <laughs> gis nga garab gi ñuy wax daqaar mhm. daqaar boo ko àndatee moom daqaar trois cent cinq la lay la lay jox del kat la Euh, xaaf nekk 100 alif 1 ra 200 moo tolloog moo tolloog xaadiru tur yàlla wi ñuy wax xaadiru moo ko jàpp tur yàlla wi ñuy gis nga li nga xam ne moom nga ñuy wax saab-saab xam ne mën naa faj lu ne ni muy fajee sax ñëpp dañoo jàpp na faj rek la man waaye gi nga saab-saab nopp saab-saab moo ci gën a gaaw saab mu ngi la mu ngi la jox vingt racine gi sept la alif 1 ba 2 racine 7 alif 1 ba 2 moo jox la vingt vingt moo jàpp badu moo jàpp wa moo jàpp xëët yi baduun wa duudul xëët yi vingt moo ko jàpp kon gis nga ci saab-saab am na loo xam ne boo ko bindee def ko ci doomu saab-saab suul ko nga fexe ñetti fan mu nëb ci kàttanu yàlla kenn mënu laa tàqale ak déet ko gis nga ci ci boppam tamit gi nga am na aay boo xam ne mu ngi ci suratul fathi mooy inna fatahna laka fathan mubin ñu koy wax wa yansuruka Allahu nasran azizan gi nga wa yansuruka Allahu nasran azizan boo ko xadatee 818 la 818 moo jàpp was wasur garab gi ñuy wax wasur was wasur boo demee Saalum gis nga taal nit dëgg-dëgg nga xam ne da nga koy taal mu tàkk jëppit loola moo ci gën a gaaw léegi nag di ñu nga defal nag incha allahu taala gi nga wayan soroka gi 818 mhm. la wasfa soor 818 la moo tax am na garab yoo xam ne du caaxaan déedéet. jërëjëf sunguf. yi euh, lan lay hmm. euh, hmm. hmm. euh, yu bëree bëri yi ma yor li ci ëpp alxuraan lay àndal am na sunguf yoo xam ne. wàllu kaaraange lay àndal boo bindee boole kaag moom kaaraange am na yoo xam ne yàlla dogal na bayre la yanda am na sunguf spécial yoo xam ne moom la am na koo xam ne ku rab jàpp <laughs> ku rab jàpp ki rab jàpp bu ma la téyee wóor na yàlla nga nga rab yi tàqali ko yow ah, rab ah, man ak ak hmm? <laughs> ah, man lool waaye ñu ni <laughs> mën man loolu waaye ñu ni de yàlla may nañ ci loo xam ne jàpp nañ ne bu ko mayee nit mi bariwul <laughs> eh, am na yoo xam ne nii sunguf la yoo xam ne ni da koy suuroo ku rab jàppoo da bàyyi nga boole ak alquran sangoo ko dalay bàyyi ci saasi ci kàttanu yàlla a eh, wax dëgg yàlla sunguf yi bari na lool mm, ni lañ ñun alquran mooy sun mooy suñ titre mooy sunu lépp waaye garab nag dañu ko xam garab moom dana ko xam. Mm-hmm. macha allah euh, sëriñ bi euh, macha allah dégg nga kàddu yi mu wax. Mm-hmm. dégg nga xam ne moom la fi wax moom la fi faj macha allah. Mm-hmm. wax na vraiment wax na lu am solo. muy euh, sëriñ Babacar. alquran. kon rek képp koo xam ne déglu nga vidéo bi rek nga soxla Serigne bi nga xam ne mooy daw ci barre d'écran bi rek. boo ko wooyee di nga jot ki nga xam ne mooy Serigne Babacar alquran. nekk fii ci cité Comico. côté. école. Mm, école bi rek ci sardin sardin bi boo ñëwee mm, boo ci. waa mm. ñu ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moom ak kéemtaanam du dañ mukk di ko wàcce yàlla mi nga xam ne moom euh, xam-xam yëpp moo ko peeg xada xaata ala kulli yàlla peeg na lépp. yàlla mi nga xam ne nii nag moo nu baaxee may nu li nga xam ne bu ko neexoon mu rikki ko yàlla moom moom dong la ñuy sant waaye di sant tamit Seexuna si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul mi nga xam ne mooy sunu lépp mooy sunu ndëgërluwaay mooy sunu yaakaar mooy sunu lépp ñu jàpp nañ ne lépp lu ñuy def rek sëriñ bi mooy taxaw def loola <laughs> wallaahi lazim eh, di ko jaarale tamit ci muritam bu dëgg ba muy maam si Ibrahima Fall lamp Babul diin waaye di siyaar tamit sunu sëriñ bu baax Cheikh Mouhamadou Bassir eh, waaye di siyaar bu wér a wér tamit sa soppe yi nga xam ne ñoom ñu seetaan bu baax eh, wax dëgg yàlla di siyaar tamit mbokki internet yi waaye di la siyaar bu baax ndax wax dëgg yàlla sëñ Yadaali macha allah yow ku baax nga ak sëñ Idi ñoom ñëpp di leen siyaar bu baax.